porte bi di génnee nii yéen may dégg fii nag ngeen di génnee man amul lu may tàggu kenn lu mu neex ku waay neex nangu ku mu neexut nga ndox ci biti man côté bi la sama série salade de fruits nekkee boo tëjee fii man fan laay aw pour dem ci moom eh, waaye jugal fii waaye nga am ay série salade de fruits a oh, dama faale ay salade de fruits góor daa am tur yu dëgër ay cerise konkorong ñeew dànq kuuni yow ñàkk nga fayda waay ay dànq te l'utiliser mooy bizarre yi